L'habilleur des VIP, Welma Boutique, une prêt-à-porter multidimensionnelle. Waouh, Welma dal du ay caaxaan ay costumes de classe. des très jolies montres chemises high level des chaussures basket chaussures classiques parfum de classe. réellement du yam ci sañsel la rek lu ci mel ni matériel sportif ay disque de poids vélo de sport tapis roulant matériel abdominaux lépp ngi ci boutique Welma Welma boutique Sacré-Cœur 3 derrière boulangerie zone en face chez Mbaye Dièye Faye. téléphone 77 555 21 67 ou le 77 370.

kon sama jaan da koy gaañ. sama jaan ama jaan gi dañuy bu jaanam dañuy collé gémmiñ gi. bu bi nag indi ndaw wu ko. bu ndaw bu ndaw bi waaw gis naa ko bu ndaw la waaye bi mu doon indi ca làmb ja yëm doon bëre boobu dañu doon collé gi waaye bii gis ko kenn collé wul gémmiñ gi. jaan ak jaanu bomba ji. waaw yow bomba ji daa am jaan bomba ji daa ñemee yor jaan boobu bu ñu wax di waxi bomba jee ak jaan. ah bomba jee daa ñemee yor ay bëy la yor ay bëy ba ma ji ay bëy la yor ay bëy la yor déedéet man jaan laa astafurlah ba ma ji mooy lekk bëy bëy boo ji soo xoolee xam ne lekkatu bëy la ah kon yow man man ma ji mooy lekkatu bëy bi may xam naa ana liiru jaan ba ma moom lu may laajtee moo am na ku mu war la laajte Balla Gaye moom la war a jaakaar lool man. su ma ñemee ñeme na baam su ma ñemee ñeme na musibaam. bul ma. kooku amul jom bul ma wax waxi Zarko amul jom. bul keroog maa ngi dégg mu naan suñ ko joxee Modou Lo mu bëre moom. <laughs> kii lu ko dal yow Modou Lo taxoon muy reyantee ka xeex ka Modou Lo saa kees mo kii nu tudd Sa Thiès ak Zarko ah diggante coow Balla Gaye ak Modou du euh, foofu la jóge woon waa te lépp ci moom la jóge woon man ñii lu leen dal kan ay xool la dama la wax bul ma ko waxati de Balla di sama rakk nga mu ñu bokk ndey ak baay nga ma di nga mos a bëre ak waxuma la ay waxi nga ma ay waxi bëre ak Balla muusu Balla sax muusoom laa la muusoom wala ginaaram mu dama koo bëgg nee naa ku bëgg Balla Gaye mu bëgg la ku ko bañ ma bañ la waaye xam na laa bañ tey nga nekk fee subaa nga demaat fële man bëgguma loolu mën toujours nii rek est-ce que da nga maa mos a dégg feeg beneen mbër. eh xool eh kii yow man nga nga laaj ay bambal ma bu bu ba Balla Gaye ku ma gënal. muusu Balla Gaye moo ma gënal Bombardier. musu gée Balla Gaye moom a gënal Gris Bordeaux waaw. na leer Balla Gaye Bombardier ku la gënal. muusu Balla Gaye moom a gënal Bombardier yow dimbali ma nga wax Bombardier. Balla Gaye Gris ku la gënal. yow dimbali ma nga may bu Gris Bordeaux nga may tëkkal ak Balla Gaye. Ah. muusu Balla Gaye moom a gënal Bombardier. damaa gis mu nekk sa xarit rek. kan mooy sama xarit Gris. nu mu nekkee sama xarit. ah dama ne dañoo tase ci benn dëj ngeen di. bëri waaw dañoo dëj bi waaw papaay bës ba mu gaañoo Gris Bordeaux daal dama goro ak Balla Gaye ku la gënal. tey mu leer Eumeu Sène. Ah. Balla Gaye Eumeu Sène nga may wax daan ay Balla Gaye ku gënal am Balla Gaye Eumeu Sène nekkagul sama goro bul wax ay Eumeu Sène sama goro jëmi ngay daf maa nopp man <laughs> yow barki rasulillah yow jaaxal nga ma nga yaxoon naan maay Eumeu Sène sa goro la de damaa mayegul ba mu nekk sama goro jëmi nga nopp kan ah maa ko nopp wala moo ma nopp kii Modou Lo ak Balla Gaye nag sérieusement. Modou Lo ak Balla Gaye ci lan. ku la gënal yow xool vraiment bu ma fontoo nga may Modou Lo ak Balla Gaye. Modou nga may tëkkal yow dimbali ma waaye nga am Modou Lo ak Balla Gaye ku la gënal. baa moom Balla Gaye ku la ci man. Balla Gaye sama rakk sama frère ñu bokk ndey séeri buri bàcc li bàyyi Mouhamed bàyyi magi saa kees liiru jaan nga may tëkkaleeg tàppet yooyu nga xam ne kenn ñimee booy ñaa nag naa ay lonko ngeen ay lonko ngeen de. nekkee ay lonko Boy Niang dama ko classé ragal la dégg naa démb la woon anniversaire am. waaw kay bi ñu nekkee gis naa ngay wax ak moom téléphone. waaw. waaw ah. ma ko paas. dan ma koo paas. comme que ragal na ba dem kay. Mm-hmm. baax na. ok tappat la. ñoom ñëpp ñoom ñëpp dama leen classé. Mm-hmm. nag mm-hmm. su may ay ku la duma ko seet si déggal wax ji muy wax maa ngi nii tey ñëwuma ba ma fi ñëwee daa am lu ma fi indi. xaw ma de sa yoon nekk si kaar macha kaar sa yoon nekk ci dimbali ma kaar sa gatu gémmañ bul ma catu bul ma catu bul ma catu ku la damaa sangu damaa tax ku damaa sangu sangu ma de. Hmm. sangu ma de daa am foo nekkoon rek ay sangu ma. fas bi léegi ah, yow gis nga fas bi fas bi kay La bière des VIP, Welma Boutique, une plaie à portée multidimensionnelle. Waouh, Welma dal du ay caaxaan ay costumes de classe. des très jolies montres chemises high level des chaussures basket chaussures classiques parfum de classe. réellement du yam ci sañsel la rek lu ci mel ni matériel sportif ay disque de poids vélo de sport tapis roulant matériel abdominaux lépp ngi ci boutique Welma Welma boutique Sacré-Cœur 3 derrière boulangerie zone en face chez Mbaye Dièye Faye. téléphone 77 555 21 67 ou le 77 370. 43 43 Wilma Boutique, le prix s'oublie, la qualité reste.